chers internet yu enquête 221 dal leen jàmm dalat leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé kook la témoin yéenekaay bi desuwaat ci deuxième session ordinaire bi nga xamante ni conseil économique social et environnemental ñu koy waajal yéenekaay bi ñu xamante ne fi mu toll ni day coow ne kur ma di coowal gaz ak pétrole gi nga xamante ni ñu koy tudd ci Sénégal ndax kuréel gii di conseil économique social et environnemental la njiit gi nag ne gis nga Sénégal gii fii lay jaare nag jël yoonu koom-koom abadan l'observateur di ko dëggal ne conseil économique social et kay fi mu nii ñoo nga ca gaz beeg pétrole bi di ko càmbar mooy seen thème central ci deuxième session ordinaire bi nga xamante ni ñoo ngi koy amal yéenekaay bi ne boo sukkandikoo ci xalaat ya fa mujjee génn nañu jàpp ne Sénégal moom tekki nañ ba noppi yéenekaay bi desuwaat ci enjeu yi nekk ci suñu ci weer de amul nu mu fa bëriwul waaye jamono ji nag ñoo ngi commencé xàmmee candidat yi maanaam formation politique yi kenn ku ci nekk mu ngi feeñal boppam di feeñal candidat am ne dañuy bokk ci élection présidentielle 2024 yi yéenikaay bi di leen lim ne APR dañuy bokk PDS dañuy bokk Pastef les patriotes dañuy bokk dañuy bokk ak yeneen yu kuréel yoo xamante ni ñoom jëm te ñoom ciy def ay jéego enquête yéenikaay ne ambition yi kay ñu koy gis benn par benn nag ñenn ñi bu fekkee ne ni fësal waaye bu nu moytul élection présidentielle yéen jëm dana bëri candidat lool ndax booy xool Ousmane Sonko Karim Wade Khalifa Sall docteur Abdourahmane Diouf Déthié Fall Malick Gakou Maître El ba ci yeneen i lii day wane ne ci pëccëxoo dëgg la ñu ci élection présidentielle yéen jëm waaye laajte gi kay moo di est-ce dinañu ami parrain en bu nu sukkandikoo ci Ibrahima Bakhoum di analyste politique moom mi nga xam ci biir yéen

2024 te tasul lée fa yéene kay président Macky Sall kay fi mu nii sérieux problème la am waxuma la sax coalition bi nga xamante ni fi mu nii tas na ba noppi waaye opposition bi fi mu nii dañ ko wër ndomba ndax bu ñu ne Ousmane Sonko mu ngay def nemmeeku tuur di wër biir dëkk bi nag bàyyiwul fenn Déthié Fall moom nekk ca bitim réew ak slogan bii di kay bokk maanaam moo xam réew mi bitim réew tournée yi nga xamante ni président présidentielle yi ñu jëm waaw wala déet en tout cas nas moom président Macky Sall moo di tournée économique xanaa du ñàkk ci biir tournée yi nag mu daal leeral candidature am maanaam 2024 day participer waaw wala déet critique yéen i kay ne ki ñuy boole ci élection présidentielle 2024 yi kay te ba léegi mu ne tekk-tekkaaral yi ci yàbbiwu ci yéen i bi ne du kenn kudul Khalifa Sall mi nga xamante ni bu nu moytuwul tey bootu ci yaakaar nañ dina bokk laa la wax ñu ngi def seen déclaration benn par benn waaye Khalifa Sall mu ngi ne tekk rek dégguñu ko benn yoon mu def déclaration officielle en bu nu sukkandikoo ci yéenekaay bi mu ngi xamal ni Khalifa Sall juoloo lay bañ ak Serigne Moustapha Sy li mu bëgg ma di tooxaar ba xam parti pur dafay am candidat waaw wala su boobaa mu xam ndax dafay poser candidature am dafay ànd ak candidat wu Serigne Moustapha Sy li moo tere Khalifa Sall mii 3 amul nu fa bëreewul coow laa la wax mën la dañoo ubbi session bi rek coow li commencé ci oto yi nga xamante ni moom la war a jox député yi ndax état bi li mu bëgg moo di jox benn député nag oto waaye kenn ku ci nekk ñu jox la indemnité lu toll ci 700 000 francs lii la député opposition bi lànk ba xala ci suuf ne du fi amee jox suñuy oto comme nam fa daan demee en tout démb de coow lu bëri am na ci biir assemblée nationale daal di jàll source aané leneen lu dul jàll kay moo di sàcc gi nga xamante ni seetlu lañ ko ci biir AIBD yéenekaay bi ne dig jàpp nañu ñaar ñoo xamante ni ndekete yoo ñoom ñoo sàcc ay matériel ci biir AIBD te matériel li ci gën a graw ay jumtukaay lay doon permettre ñu daal di détecter ay bomb bu dee ne mu ngi ci biir aéroport bi jamono bi nga xamante ni ñu ngi jógee ko aéroport Léopold Sédar Senghor di déplacé wu di ñëw ci AIBD ci la ko ñaari agent daal di sàcc te ñoom ñooñu ay syndicaliste lañ nekk mu fa gëneewul ngir réew ndax ci wàllu sécurité la jëm te lépp loo xamante ni dafa jëm ci bomb buñ ko fay sentir ca biir aéroport ba da koy détecté noonu ko ñaari agent yi daal di sàcc direct news ne lu raw sàcc de moom la ñu seetlu ci hôpital Aristide Le Dantec yéenekaay bi nga déplacement bi nga xamante ni commencé na faa am ci la ñu seetlu nekk te bëri na ay médecins yoo xamante ni faux ñu yoroon nekk ca biir service ba di doxal yéenekaay bi ne scandale bu rëy laa lay tegal nii ca biir ci jamono bi nga xamante ni ñu ngi déplacé hôpital bi ci la ñu seetlu li ni mel ne bëri na ci ay agent yoo xamante ni amuñu woon diplôme yu wér maanaam dañoo sàcc ba dugg ci biir hôpital bi et pourtant li ci gën a mooy seet nañ ci ñoo xamante ni dañ doon jege lool nag ak malade yi ñoom responsable yi dem nañ sax bay xalaat ne déegu taqarnaase gi nga xamante seetlu woon nañ ko ci biir hôpital Aristide Le Dantec mbaa du faux diplômé yii ñoom ñoo ko waraloon dégâts ya ñuy fa def musiba mbaa bokkumba yëg lépp yéenekaay bi desuwaat na ci tey xamle ne bu dee woon nag déplacement bi nga xamante ni koy déplacé benn pàcc ak Aristide Le Dantec konoon ñi nga xamante ay faux diplôme lañ duñu leen gaaw a naqari président Macky Sall yéenekaay bi dañu xamal ni ma président boo bëggee dégg dëgg rek réseaux sociaux yi sonal nañ ko lool même ci huitième édition forum civil bi nga xamante ni moo moo jëm ci wàllu kaaraange réew Afrique yi tañ ko doon amalee ci Ndakaaru Njaay président Macky Sall ba mu jëlee kàddu rek la ñaawlu waat doxalin yi nga xamante ni mu ngi am ci réseaux sociaux yi waaye yéenekaay bi mel ne daf koy tontu tey xamal président Macky a a xaste ci réseaux sociaux yi boo ci génnee say ndaw wallaay dara dootu ci des la yor ci réseaux ko doon lim nag <laughs> noo sant mu ne wele balaa ngay digle sangaay da ngay seet ba noppi rasulillah ñu yenn ak jàmm mbokk yi ba suba ak jàmm incha allah